أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل ماذا خلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن شكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله علي حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا هلا وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم بنام كيف موي أنا شكور له ولا أنا شكور أشكر لله أنا شكور نعتي نعرف بنام بفهم waaw an nushkur waaw alhamdulillah an nushkur am na beneen kii fa in jaahadaaka jaahadaaka daa bi doo xëcc xëcc bu dina kii am na koy xëcc ci xarakatay ñaari yi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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam ñu ngi woon ba tey ci al jaami saxiix wal imaam amirul muminina abu abdullah muhammad ibnu ismail al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu ñu yegg si woon nañ ci ba tey ngi woon ci kitaabul azaan bi ci abwaab sifati salaat gisoon yegg si war nañ ci fi mu naan baabu itmaami takbiir fi sujjóot bunt bi nga xamante ne moom moo wax matal bi nga xam ne moom lañu war a matal kàbbar gi ci sujjóot gisoon nañ ci xadiis sayidna ali ibn abi taalib radiallahu taala anhuma ak sayidna imran ibn xuseyn radiallahu taala ne si moom ak mutarrif ibn abdullah ñoom ñaar raxmahullahu ñoom ñii ñëpp radiallahu anhu jamii manam ñom dañu jullu won ci ginnaw sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu waaye da dan def saa yu yëkkati ko rek dal di kabar saa yu rotee kàbbar mu wax ko ko muniko li ñu bañu noppé mu sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma japp ci loxom ne ko ki day daf ma fàttali jullik sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naga non gisoon nañ xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bu al imam ikrima rahimahullahu taala wax ne moom day e, dafa gisoon e, benn waay ci maqaama ibrahim alayhi salaatu wassalaam muy kàbbar saa yu yoo xamante ne day e, rot naka noonu muy kàbbar saa yu saa yu saa yu wàcc muy kàbbar saa yu yëkkati ko tamit muy kàbbar waaye ba mu ko waxee loolu mu xabaare ko sayyidna abdullah ibn abbas radiallahu mu ne ko loolu xanaa lu mooy julli yenente bi sallallahu alayhi wa naka noonu gisoon nañ ci baabu takbiir idaa qaama mina sujuud baa bunt bi nga xam ne moom mooy wax ne bu ñuy dañuy kàbbar su fekkente ne dañoo taxaw jógee ci sujuud gisoon nañ ci xadiis Seydina Abdullah ibn Abbaas bi ñu la wax léegi radiyallahu taala anhuma te gisoon mu ne gisoon naa benn euh, mag ca Makka muy kàbbar euh, ñaar fukki kàbbar ak ñaar euh, ci julli sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu maa ne ko ah loolu de moom mooy jullig yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu gisul nañ ci xadiis abu hurayrata radiyallahu taala anhu bi wax ci alayhi wa sallam ni nga xamante ne noonu la daan jullee mu kàbbar saa yoo xamante ne dafay yëkkati ko wala muy wàcc waaye ci rukoo foofu rek la leeral maanaam mu leeral ne maanaam bu yëkkati ko ci rukoo dafay wax sami allahu liman hamida su demee ba taxaw daal ni rabbana lakal hamdu wala boog rabbana walakal hamdu léegi ñu war a gis baabu wadol akuffi ala rukabi fi ala fi rukoo ginnaaw bi nga xamante ne nag léegi yëkkatiku na ci maanaam jóge ci kabar gi nga xamante ne maanaam moom mooy bu ñu waxee bu ñu bu ñu bu ñu taree ba daal nag léegi wax ñu daal di rot nag daal di maanaam li nga xamante ne moom moo aju woon kon ci kabaru armal bi ci ponk bu njëkk bi gisoon nañ ko gis nañ ponk bi nga xamante ne tamit moom moo aju maanaam ci ci ci wàllu rukoo maanaam ci wàllu ci wàllu tari tari tari alquran rawatina tari bi nga xamante ne moom la ñuy tari suuratul fatiha léegi insha allahu taala ñu dem ci beneen ponk nag boo xamante ne boobu tamit ci ponk julli yi la bokk te mboolem boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci te bunt yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu nii ci bunt boobu yépp ci buntu ponk boobu l aju mu ci leeral li nga xamante ne moom moo ci li war ak li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne dañ ko cee ak li nga xamante ne moom lañ ci yoonal li mu daal di wax euh, indi bunt bi nga xamante ne moom mooy bunt bunt bu njëkk bi maanaam te moom mooy ci wàllu record maanaam moom mooy mu euh, bunt waddool waddeel ak kuffi teg gi nga xamante ne moom la ñuy teg tënk euh, tënk yi alal ruka bi ci kaw óom fi waaye ci rukoo maanaam li nga xamante ne moom moo mat bàyyi xel moom mooy ne rukoo dafa nekk loo xam ne ponk la ci biir ponk julli te ñépp ñoom ñoo ko def ponk mu nekk farata ci anam goo xamante ne képp ku bàyyi rukoo te tey ko sa julli du wér naka noonu képp koo xamante ne dangaa bàyyi uh, rukoo te te te fàtte ko maanaam rakka boobu nga xamante ne moom nga def dañ koy day daal di nasaxal naka noonu soo jullee ba nopp fekk fa fàtte nga ko carrément nga julli sëlmal imma mu fekk ne julli gi yàggul nga jug mottali daal di sëlmal sujjóot salaam waaye su fekkente ne amul bu boobaa da daal di maanaam julli googu day daal di yàqu nga war a julli waat beneen julli bu fekkente ne fàttaliku nga ko ci biir julli gi waaye ba pare terewulaa sëlmal bu boobaa nag li nga xam ne moom mooy sa julli gi moom mooy day yàqu li nga xamante ne tamit moom mooy beneen mbir bi aju ci wàllu ci ci wàllu euh, ruko maanaam bunt bi moom mooy maanaam ci wàllu ci wàllu ruko maanaam moom mooy li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim bu ñu ko xoolee daanaka ñoom ñëpp nag xaw nañoo jegewantoo ci li nga xamante ne noonu la ñu melalee ruko ba nga xamante ne wuute gi nga xamante ne moom la ñu wuute xaw tuuti mu jege maanaam xilaafun bi maanaam mu nekk wuute goo xamante ne xaqiiqatan baat yi rek ñoom ñoo wuute waaye liñ bëggoon a wax ñoom ñëpp benn la ndax baatu rukoo ci li nga xamante ne moom mooy ci luxa mi ngi jóge ci al inxinaa maanaam mooy ak jéng wàcc ni maanaam ak sëgg li nga xamante ne nag moom mooy ci wàllu istilaax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moom mooy sëgg gi nga xamante ne moom la nit ki di sëgg ba maanaam jege ba loxo yi maanaam mën a toll ci óom yi wala bokk mu nekk koo xamante ne maanaam wàcc gi nga xam ne moom la wàcc moom la gën a jege ka taxaw loolu moom mooy rukkoo maanaam li nga xamante ne nag moom mooy la ci gën a néew maanaam bu ñu xoolee mboolem borom xam ne liñ ci wax rahmatullahi alayhi te wax xam ne ay wax yu jege wala toola moom mooy la ci gën a néew mooy nit ki jéng sëgg sëgg xam ne wala al mooy sëgg maanaam sëgg gi nga xamante ne moom ngay sëgg ba euh, ba nga xamante ne loxo yi. fi mu toll boo ko bëggoon a teg ci oom yi mënoon ko cee teg boobu sëgg boo xësee ba yegg ci foofu rek maanaam roko nga lool nag mooy li nga xamante ne mooy li gën a ci wàllu roko am maa su fekkente ne nit ki dafay julli te toog roko maanaam mi ngi matee su fekkente ne sëgg na ba bopp bi tolloog oom yi maanaam noo xamante ne dina def nii maanaam ba bopp bi mën a tolloog oom yi loolu boobaa mu def naa wax ne roko la loolu nag bu fekkente ne nag. dafa war a euh, roko maanaam li nga xamante ne nag noonu lay gën a mate loolu mooy lii nga xam ne moom la imaam al buxaari rahimahullahu taala di leeral fii mooy ñu jël loxo yi teg ko tamit ci oom yi waaye ñu sëgg sëgg goo xamante ne euh, euh, jéng jéng goo xamante ne ndigg li day tàllalu bopp bi maanaam tamit nekk loo xam xamante ne du yëkkatiku waaye tamit du sëgg lool maanaam sëgg julli sëgg nii rukoo def nii loolu waxuñu ko ni noonu sëgg rukoo def nii loolu kenn waxu ko maanaam sëggaru ko maanaam day daal di yemoo maanaam nga xamante ne bopp bi ak ndigg li dañuy daal di tàllal ci anam goo xamante ne comme ni ko sayyidat Aïcha radiyallahu taala anha waxe ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan rukoo da daan tàllalu ci anam goo xamante ne buñ tegoon ndox ci ndodd li ndox mi lu du wadd maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy rukoo nga xam ne moom mooy gu mat gi beneen mbir bi nga xamante ne moom la indi fii muy baabu wad'il ruk baabu wad'il akuffi ala rukabi fi ruku' maanaam bunt bi nga xamante ne day leeral ne dañuy teg loxo yi ci kaw óom yi ci ruku' loolu mooy waxu jumhurul ulama rahimahumullahu taala xatta mën nañoo wax ne sax maanaam shibhu ijma am na ci masala bi maanaam loo xamante ne mënef na ko daala ko tuddee ijma ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ne bu ñuy rukkoo dañuy daal di jël loxo yi teg ko ci óom yi te loolu mooy li nga xam ne moom mooy li si a siiw te li sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam comme xadis yi nga bi nga xamante ne dinañ ko gis ci suñu bunt bi na koy leeral naka noonu mboolem xadis yi nga xamante ne dañ koy gis ci suñu saxeex bi inchaa allahu taala te ñuy leeral maanaam li nga xam ne noonu la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon rokooyee maanaam yooyu yëpp dañ koy leeral amma li nga xamantene nak mom moy mooy roko moom mooy benn am na riwaaya xadis boo xamante la al imam ibrahim ibn yazid an-naxa'i rahimahullahu taala salati ci ñaari ñuy ñu mag moy al khamat ibn abi wa ibn qais al al al al an-naxa'i ak ak ak ak ak al aswad rahimahullahu taala maanaam alqamat ibn abi waqaas ak eh, al aswad ibn qays eh, an naxee rahmatullahi alayhima maanaam ñoom ñaar ñii ñu ñëw ci fekk sayyidna abdullah ibn mas'ud radiallahu taala doon julli mu daal di jël loxoom teg ko ci ay óomam maanaam mu daal jël loxo yi ñoom ñu ñëw taxaw maanaam bi ñuy julli ñu ñoom ñaar ñëpp ñu taxaw ci wetam waaye moom muy julli daal di jël loxoom eh, teg ko ci diggante ñaari Euh, lupp yi ba pare daal maanaam ñoom foofu lañ ko teg am na tamit sax ci riwaay boo xam ne dañ ko cee teg ba pare tanc ko maanaam noonu lañ doon jullee ñu ne yeneen moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne nii la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam digal digaloon nañu ko ñu jullee ko maanaam ñu jullee jël suñu loxo teg ko ci suñu euh, ci suñu lupp yi nii ci maanaam fi óom yi tollool maanaam ñu daal di koy tegee nii maanaam teg ko ci noonu noonu lañ leen ko digale ci beneen riwaay maanaam daf cee boole maanaam dajale seen dajale ñaari tànk yi maanaam ne noonu moom mooy li nga xam ne noonu la leen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ni nañ jullee noonu loolu nag mu nekk wax joo xamante ne wax ju kéemtaane la ngir ne lu ëpp ci boroom xam-xam yi ak lu ëpp ci xadiis yi dañoo wuute ak loolu waaye nag li nga xamante ne euh, moom la boroom xam-xam yi tontu ci loolu mooy ñetti wax lañ ci am bu njëkk bi moom mooy ne dañ koo folli te sayidna abdullah ibnu mas'ud radiallahu taala anhu xam ko woon ñaareel bi moom mooy ne euh, dafa nekk loo xamante ne euh, dafa jàpp ne euh, dafa dafa dafa dafa jàpp ne loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li maanaam mooy li wér te maanaam tere gi nga xamante ne moom lañ ko tere maanaam ne léegi nañ jël suñu loxo yi teg ko ci oom yi ba pare bu ñu def loolu loolu nag dafa nekk loo xamante ne tere gi tere si biir la maanaam nekkut loo xamante ne te rek xaraam la ñetteelu wax ji nga xamante ne moom lañ ci wax moom mooy euh, ne dafa moom Seydina Abdullah na Mas'ud radiyallahu taala dafa gis ne mënef naa tànn maanaam bu la neex tànn sa bu la neex la maanaam boo defee noonu mën nga def boobu boobu comme mën nga def bi nga xamante ne mooy bi gën a siiw te moom mooy jël sa loxo teg ko ci kaw saw oom waaye li nga xamante ne moom mooy li gën a yanu maanaam ci biir yooyu moom mooy ñetteelu wax ji ngir ne sikk nekkul ci ne mënuñoo jàpp ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ak mi nga xamante ne noonu la nekkee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a dugg ci lislaam ba noppi yàgg di ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam naka noonu takkoo woon ak moom ci anam goo xamante ne daf doon euh, moo ko daan yoral ay ay ay ay bagaasam naka noonu moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon muy dugg ci këram ak génn nu mu ko neexee ba noppi saa yu daan tamit lu ci ëpp mënef naa dogu ci ne bu yëpp lu ci ëpp ci sàpp bu njëkk bi la daan taxaw loolu yëpp munul boole loolu yëpp ba pare dundandoog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tàqalikoowul moom ba ni mu fi jógee ci zahir sallallahu alayhi wa sallam ba noppi di réeri maanaam ne dañoo nasaxal lu mel nii maanaam loolu moom nekkul loo xamante ni xaqiqatan lu ñanu maanaa waaye li nga xamante ne moom la ñu wax mooy ne moom dafa jàpp ne maanaam mënef naa def ñaar yépp et que comme bee kenn defu ko mu jàngal taalibe bi ne leen quand même mën nañuy def bii itam ndax loolu sunna la boo xam ne buñ ko jàngalewul kon day daal di fàddu waaye xaqiqatan lool maanaam li nga xam ne mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñu wax mooy ne loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko folli te loolu moom mooy insha allahu taala li nga xam ne mooy li gën a ci masala bobu insha allah taala amma li nga xamante tamit mom moy buñu jël loxo bi manam mu ne mu ne wa qaala abu humayd manam mu daane wa qaala abu humayd te mom moom mooy assaaidi rahimahullah radiallahu taala dinañ ko gis insha allah taala insha allah taala dinañ ko gis ma ci bunt yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci baabu sunnatul julusi fi tashahhud maanaam xadis boobu insha allah muy xadis bi muy wax dinañu ko gis ci anam gi mu gën a mate jotoon nañ ko gis eh, eh, ci ci ginnaaw ah, mu ne am kana mu ne ah, am kana jàppandi na eh, annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yadayhi loxoom maanaam jàppandal na jàpp am kana jàppandal na annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yadayhi ñaari ci ay wóomam yi ci ñaari wóomam yi maanaam kon moom mooy ne bu fekkente ne nit ki day julli buy teg loxo yi maanaam ci yi da ci teg tegin koo xamante ne da koy jàppandal maanaam ci anam goo xamante ne eh, da koy maanaam bu boobaa tamit day daal di ubbi li nga xamante ne moom mooy ay baaraamam maanaam du baaraam yi beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy am moom mooy ne eh, loxo yi maanaam dafa war a tàqali ko ak li nga xamante ne moom mooy peggu Euh, nit ki maanaam moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, maanaam për gi për gi moom mooy euh, bis hmm, biceps yi triceps daa war a tàqali ak li nga xamante ne moom mooy moom mooy wa wàllam bi maanaam bu boobaa loolu mu tàqali ko loolu moom mooy ci góor am maa ci jigéen nag li nga xam ne moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nootal te gën koo sopp ci mbir mi moom mooy mu lem moom mooy mooy mu mu mu dajale loolu moom moom foofu nag ñoom dañu wax ne kon góor ak jigéen wuute nañ ci lool lool mooy li ëpp ci borom xam-xam yi li wax muy waxu jumhur di ma utim xanafi yeeg saaf ak maliki yeeg saafi yeeg rahmatullah alayhim amma mbooloo yi ñoom li nga xam ne moom lañu ñu nootal mooy ne foofu wuute amul ci diggante góor ak jigéen ndax amul dalil bu koy leeral wallahu a'lam qaala bil isnaad dégg nga ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilay xaddasanaa abul walid te moom mooy al imaam hisham ibnu abdulmalik al bahili rahimahullahu taala abul walid at tayaalisi di waa basara tamit rahimahullahu taala di sëriñ ci imam al buxaari rahimahullah mi ngi gën a àdduna 133e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 227 sallam imam al buxaari ak imam abu daawud dañoo solo ci moom waaye nag waa asxaabu kutubu sitta maanaam xadis yi tamit ñu ci kutubu sitta mu ne qaala xaddasanaa Shu'bat al imam abu bistam Shu'bat ibn al xajjaaj al utaki al asdi al al utaki thumma al basri rahimahullahu taala di imam waa basara moom gane àdduna 82 jàpp 86 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta an abi yaafuur te moom mooy al imam abu yaafuur waqda al abdi al kuufi rahimahullah moom noonu la tudd waqdaan amma léeg-léeg am na tamit ñoo xamante ne dañuy wax ne waaqid la tudd waaye li gën a siiw ci turam moom mooy waqdaan abu yaafuur nag moom mooy dàqantalam moom tamit ci waa kuufa bokk من جن أدنى سافنتيم أنا جن أقعد يانن تبي صلى الله عليه وآله وسلم مونست سقاط أي حديث من كتاب تكتبه ستة من قال نينا سمع أنه قال ممن نينا سمعت دجنا مصعب ابن سعد مي الإمام أبو زرارة مصعب ابن سعد من وقاص ت مي دوم سيدنا عبد الله بن وقاص رضي الله تعالى عنه مبوكتي تابعين اي نكتي آه، آه، ثقة بمك آه، رحمه الله تعالى مم تمت قرشي الزهري لدواء مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مجن أدنى سانترا جمع أنا جنا قد آية ننتمي صلى الله عليه وآله وسلم أي حديث تمت نكتي كتب ستة مم منا يقول منا dégg na ko mu ne sallaytu julli ila janbi ci walu abi sama baay te baayam mom moy sayidna saada ibnu malik ibnu uhayb te mom moy sayidna saad ibn abi waqas radiyallahu taala anhu moy abu ishaq az-zuhri al-madani rahimahu radiyallahu taala anhu moy imam moy moy moy moy ki nga xam ne mu bokk ci ahadul mubasharuna bil janna bok ci fukk ñoo nga xamantene ñom ñoom ñooy bil janna muy farisul islam mu tuub euh, nekk fukkeelu euh, mu nekk juróom-ñaareelu ki nga xamante ne ñoom ñooy ci tuub moom mooy boroom gëneel yu mag yi ak jaloore yu kawe yi euh, mu fekke na Badar naka noonu ak Uhud ak Hudaybiya fekk na mboolem xare yi nga xam ne ñoom la Yonent bi sallallahu alayhi wa xare bokk ci tamit ahlu shura radiyallahu taala anhu wa ardaah moom ñu génn àdduna cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu amone 83 ans ci mu am fukki hadith ak juróom yo xamantene muttafaqun alayhi la imam al bukhari rahimahullahu taala wéetoo ci juróomi hadith imam muslim wéetoo ci fukki hadith ak juróom-ñett ci musnad imam ahmad ibn hanbal mu am ci 177 hadith te loolu moy musnadam radiyallahu taala anhu wa wa anna bihi yaqulu manam kon mu ne mu ne kon dama julli sama ginnaw bay nee Euh, fa tabaxtu nee na ma ma ma ma ma toftal ma ma ma dajale bay na fay sama diggante ñaari tenk yi summa topp wadaatuhuma ma daal leen di teg bay na fax zayya sama diggante ñaari euh, ci diggante ñaari euh, lupp yi maanaam mooy comme ni nga xam ne noonu la def maanaam nii dajale leen nii teg leen ah, nii dajale leen teg leen sama diggante ñaari lupp yi maanaam loolu muy exactement ni kan def ni kan jàngale Seydina Abdullah ibn Mas'ud jàngale radiyallahu anhu maanaam mooy da leen di dajale boole mooy boole ñaar lu fiy def nii walla def nii jullee noonu walla def nii voilà bi mu leen defee noonu maanaam dafa boole ñaari kii rek baaraam kii teg nii def nii dajale walla nii def ni dajale bi nga xamante ne nag moom la def lool te loolu mooy li nga xam loolu day dëgëral ne ñoom kon am na ñoom xam ñu ko xamoon maanaam ñu xamoon ne ndekete yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale na loola summa topp wadaatuhuma ma daal leen di teg bay na faxiday sama diggante ñaar lupp yi mu ne fa nahaanii mu daal di may tere sama baay wa qaala mu daal ne naa nekkoon nag naf aluhu daan ko def fa nu hiinaa waaye ñu tere ñu am hu wëllif ko maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne mooy benn bi te loolu moom moo tax wax ji nga xam ne moom la sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu jàngal ñaari taalibim yu mag yooyu rahmatullahi alayhima loolu day tegtale ne moom euh, kon benn maanaa bi mën a ne mooy ne amaan na dafa jàpp ne euh, tere gi tere sibir la waaye maanaam du rek ne dañ koo tere ni loolu baaxul boo ko defee sa euh, maanaam sa roko bi na nga ko defee wuute nag li nga xam ne moom mooy sunna am maa ne li nga xamante ne kon moom mooy benn maanaa bi waaye loolu dana wuute xaqiqatan ak li nga xamante ne amaan na moom moo nekk waaye moom dafa jàpp ne tere gi noo seulement loolu la waaye dañ koo tere ngir bañ euh, ñu jàpp ne loolu rek a mën ne amaan na ne loolu moom la Seydina Abdullah ibn Mas'ud jàpp radiyallahu taala anhu comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon léegi wa qaala mu daan ne kon kun naa nekkoon nañ def aluhu daan ko def fa noxee naa ñu ko wa umir naa te ñu digal nu an nadaa ci ñu teg ay dee naa suñu loxo yi alal ruk suñu loxo yi te moom mooy tënk yi alal ruka bi ci kaw wóom yi loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy sunna te loolu moom moo tax li ëpp ci borom mooy jamaahirul ulama rahmatullah alayhim daanaka léegi dootoo gisati kenn borom xam-xam yi rahmatullah wax lu wuuteeg loola ginnaaw bi nga xamante ne mazahib yi sax nañu ci li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alal jamii كون حديث بي آه، امام البخاري رحمه الله تعالى آه، في لوكو اندي آه، دونت اندي حديث بوكو نورو تي حديث نيميرو 828 ان شاء الله تعالى امام مسلم انكو نيت يون حديث نيميرو 535 امام ابو داوود انكو حديث نيميرو 747 اك 867 امام امام الترمذي انكو حديث نيميرو 259 امام النسائي indi na ko xadis numéro 1032 ak 1033 imam ibnu maaja indi na ko xadis numéro 873 imam ahmad ibnu hambal indi na ko xadis numéro 1570 1576 ak 3974 kon dañ gis ne waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu xadis bi rahimallahu aljamii na baabun bunte ngi nii idaa lam yutimma waaw bu fekkente ne nag nit ki matalul maanaam li nga xamante ne moom lay wax fii mooy day leeral ne rukoo maanaam bu njëkk bi bunt bi weesu dafa wane rukoo ana nan lañ koy waaye fii dafay leeral mi nga xamante ne moom mooy maanaam niveau degré daraja bi nga xam ne moom la rukoo am ci biir julli loolu moom moo tax mu ne waaw bu fekkente ne nit ki nag euh, matalul rukoo bi ànd ak ne ci xadis bi muy indi dina ci wax ak mbiru sujjóot waaye ngir ne dafa am beneen bunt bu mu teg boo xamante ne tamit daf koy tuddee noonu ba euh, baabun iza lam yutamma sujud loolu dana ko indi ber ko insha allahu taala moom moo tax insha allah dana ko indi waaye fii yi nga xamante ne moom lay waxtaane moo tax mooy wàllu rukooy moom lay waxtaane ci bunt yii nga xamante ne moom la ñu toll loolu moom moo tax mu daal di koy indi imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala di ko leeral te loolu mooy lan boo matalu rukoo da ngay baamuwaat sa julli comme ni ñu ko waxee woon ngir ne rukoo bi dafa nekk loo xamante ne farata la ponk la ci biir ponk julli yi قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب لي حدثنا حفص بن عمر مي الإمام أبو عمر حفص بن عمر بن الحارث بن صخبرة الأزدي أن مري رحمه الله تعالى ممتمد دوا بصرة كم نحملتنا نولنك جسور من جن أن دوسان فنسين كم أنا جناو قد دايا نمتبه صلى الله عليه وسلم تي آه، جمعة الآخرة moom euh, imam al buxaari ak imam abu daawud ñoom ñoo solo ci moom waaye imam an-nasaa'i solo na maanaam ñaari xadiisam waaye ñaar yépp benn bi def ko jëlee ci imam al buxaari mu jël ko ci moom bi ci des mu jël ko ci amr ibn mansour mu jël ko ci moom imam at-tirmidhi benn xadiis la solo ci mu nekk xadiisam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna mun a qaala xaddasanaa Shu'ba moom ibnu al-Hajjaaj an Sulaymaan te moom mooy al-A'mash euh, muy Sulaymaan ibnu Mihraan al-Asadi al-Kaahili rahimahullah taala muy Abu Muhammad al-Kuufi maanaam waa Kuufa la gane àdduna 61 ane ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa Zayd te moom mooy Abu Sulaymaan Zayd ibn Wahb al Euh, rahimahullahu taala moom tamit waa Kuufa la mi ngi génn àdduna 96e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bokk tamit ci taabi'i yi bokk ci siqaat yi rahimahullahu kon mu nekk tamit bu xadram maanaam bokk ci mu xadram mu nay mooy euh, ñi nga xamante ne dañoo fekke jamonoy jaahiliya ba pare fekke jamonoy lislaam maanaam ñi nga xamante ne ñu ngi gën a wala bokk mu nekk na ko waxee neneen moy ñoo xamante dañu danoo nekkoon ay jullit ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam way jot jotuñu koo gis ñooñu la ñuy wax mu koku lañu ñuy wax muxadram moom moom kon mu ne mu ne xadisam ñu mune ama tudd ñu ko na mu ne mu ne qaala mu wax ne raa gis na moy al sayyiduna huzaifa ibn al yaman Euh, radiyallahu taala abu abdullah moom mooy dàqantalam moom euh, mu ngi génn àdduna ci euh, fukk fanweereelu at ak juróom benn muy trente-sixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa ci xilaafa sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu borom jaloore yu màggee ngëneel yu kawe yi رضي الله بروم سكر يعني بي صلى الله عليه وسلم يلقى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم موم نك بروم خم خم رحمه الله عند نووتي تي ليغا خامني موم موي مسندم كوم ليغا خامتني نون لا امام الكرماني نينا مسندم 20 حديث لا واي الشيخ قطب الدين موم بيمي شرح مال البخاري رحمه الله دافا فكي حديث اك نيار متفق عليه تي imam al-Bukhari weto ci jurom ñet imam muslim weto fukk ci fukk ak jurom ñaar muy 17 lolu ci lañuy xamé ni kon lan hadith yi upp na vingt manam kon booba loolu euh, wane musnadam upp na lolu mu ne kon gis na mom sayyidna Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu taala anhu euh, nee na gis na euh, raa gis na mom man dafa gis rajulan ap way léegi legui bimu ko gisee mu ne la laayuti mu doon woon matal ak rukoo ak rukoo ak wa ak sujuud maanaam doonul woon matal rukoo niki noonu doo doonul woon matal sujuud mu ne qaala mu ne ko maa sallayta yow de julliwoo julliwoo walaw mutta te boo dee woon mutta da nga dee ala xayril fitra ci lu bokkut ak li nga xamante ne moom mooy fitra te mooy yoon wu baax wu sell di tëggin wu rafet wi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala tëggee jikko yi ak jëmm yi mune alati bi nga xamne fatara mom la tegge allah bur yàlla muhammadan sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayha ci kaw lolé manam bu boba moy diine ju bax ju sel gi nga xamantene moy fitrat allah lati fatara an-nas alayha dégg nga mooy bindug yàlla gu rafet gi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa taala bindee nit ñi tegge len ci te mom moy zalika bi mu wax ne zalika dinul qayyim lolou moy diine gu jub gi bu boobaa yow génn nga àdduna ci beneen diine bu bokkut ak diine yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii bokk na ci li nga xamante ne moom mooy la borom xam yi di tegtaloo maanaam ci di wane ne ak sujjóot képp koo xamante ne matalu ko ci julleem niki noonu al i'tidaal ak ak tumaaniina mooy ak dal ak ji nga xam maanaam ak ak ak yem maanaam yemmoo ci sa biir jëfin maanaam ci biir julli gi waaye naka noonu tamit maanaam ak dal ci biir julli gi képp koo xamante ne matalu ko sa julli wéru loolu bokk na ci maanaam xadis bii daf koy tegtale ngir ne euh, xadis bi maanaam bu dafa bokk ci yi nga xamante ne gisoon nañ leen ne loolu lañuy ñuy tuddee mawquufun lahu hukmu rafa mooy xadis boo xamante ne ak saxaaba moo ko wax waaye atte bi mu am mooy atte lu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ngir ne mbir la moo xamante ne dafa askanale mbir mi ci yenent bi sallallahu loolu moom moo tax sikk nekkul ci ne loolu moom li muy tekki mooy ne yenent ci yenent bi la jóge sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te noonu la amee ci riwaaya bi nga xamante ne moom mooy xadis bi nga xam ne euh, insha allahu taala moom dana ko indi euh, dana ko indi ci kanam euh, waaw maanaam ñaari xadis après xadis après après xadis bi ñaari xadis après maanaam dana ci indi di ci leeral ne koo xamante ne dangaa da ngay maanaam maanaam ci riwaaya xadis boobu mooy xadis mu siiw salaati yi maanaam am na ci riwaaya bu daf ni ko woon bu fekkente ne nii lii nii nga doon jullee maanaam boo jullee woon nii ba dee da nga deewee ci beneen yoon bu bokkut ak yoonu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon danañ gis ne baat bi nga xam ne moom la jëfandikoo nii sayyidna Huzayfa ibnul Yamaani radiyallahu anhuma maanaam baat bii nga xamante ne moom la jëfandikoo fii day leeral ne maanaam keni euh, maanaam le xadis boobu daf koy day wane ne moom waxu ko da koo wax baat la woo xam ne dafa tukkee ci sang-sang yi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen mbir bi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di tegtaloowee ci xadis bi moom mooy ne maanaam dalil la xadis bi dalil la ci fuqaha xanaabira yi rahmatullahi alayhim ñoom ñi nga xamante ne dañu wax ne ku dul julli yéefir la maanaam ndax xam ngeen ni julli dafa am ñaari mbir goo xamante ne benn bi képp koo xamante dañoo jàpp ne maanaam loolu borom wax yu dëppoo nañ ci ne ku ko maanaam ku jàpp ne julli warut kooku moom yéefir la wala boog warul maanaam warul waruma warul kii warul sàmba wala wara maanaam ku jàpp ne daal ci biir mbindeef am na ci koo xamante ne moom julli dala wàcc kooku moom yéefir la muy benn ki nga xamante ne maanaam doonte kooku day julli suba ngoon guddeeg bëccëg maanaam ki jàpp na day julli waaye julli gi muy julli barkeelu rek la kooku yéefir la moom itam waaye am ma ki nga xamante ne moom muy moom nag moom jàpp na ne war naa julli waaye julliwul maanaam loolu beneen masala la mooy man jàpp naa ne gaa war naa julli mais nag xëy na sama temps bi dama sàggan dama lii moo tax julliwuma kooku ndax yéefiir la waaw wala déet loolu masala boobu gisoon nañ ko bi ñuy tàmbali ci kitaabu salaa waaye xadiis bii day dëgëral masabu nan xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko wax maanaam ngir ne fii sëgam ki nga xamante ne moom dana julli waaye na muy jullee nii moo baaxul ñu ne ko dee nga ci beneen yoon beneen diine bu bokkut ak diine yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxuma laa ki nga xamante ne moom julliwul moom maanaam kooku moom moom waxaale wuñ ko yàlla na yàlla sàmm xadis bi imam al Buxaari rahimahullah taala indi woon na xadis numéro 389 dina ko indiwaat xadis numéro 808 insha allah imam an-Nasaa'i na ko xadis numéro 1312 imam ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 23258 ak 23360 dañuy gis ne kon waa saxaabu kutubu sitta a ñii euh, ñaar rekk ko ci indi te moom mooy imam al Buxaari ak imam an-Nasaa'i rahimallahu al-jamii na baabu istiwaa az-zahri fi rukuu maanaam buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu bi wax ne baabu buntu istiwaa yi yemmoo az-zahri ndigg maanaam digg ginnaaw fi rukuu ci biir rukuu bi maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee woon léegi maanaam ginnaaw bi nga xamante ne wax na ne dañuy matal maanaam rukuu bi dañuy jël loxo yi teg ko ci óom yi ah, naka noonu tamit ndigg li tamit dafa war a nekk loo xam ne day tàllalu mooy istiwaa daa war a yemmoo waaye maanaam rukoo def nii maanaam sëgg lool ba nga xamante ne boo ci tegee dara mu wadd wala boo nga siggi lool ba xam ne boo tegee dara itam mu waddee ne maanaam loolu du li nga xam ne mooy li li nga xamante ne moom mooy li gën ci ni ñuy rukkooye mooy nga tàllalu maanaam tàllalu naka noonu bopp bi nga def maanaam mu tàllalu nii maanaam bu ko defee soo rukkooye maanaam seen euh, da ngay da daal di def nii maanaam euh, nii su ma rukkooye maanaam nii su ma rukkooye ma def nii maanaam nga gis ne nii ma jàppee oom yi def nii lii moom mooy nii la ñuy rukkooye voilà voilà moo ngoog 90 degré waaye roko boo defee nii comme ñenn léeg-léeg nga gis ku roko tamit daal di lem tànk yi def nii maanaam loolu su ko roko bi day dëng maanaam euh, def nii loolu tamit maanaam du du roko bi gën maanaam roko bi nga xam ne moom mooy bi gën mooy bii nii nga xamante ne da koy taxaw tàllal tànk yi ah, maanaam teg ah, nii teg loxo yi nii nii bu dee jigéen mu def nii voilà mais nii nga xool fi nga xamante ne moom mooy euh, fii waaye euh, am ma tàqale diggante góor ak jigéen comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi dafa nekk loo xamante ne euh, boroom xam-xam yi ñoo ko ci indi ci buntu boobu waaye amul lu leer dalil bu leer muy wane loolu allahumma ba bu des ne maanaam jigéen ay mbiram dañuy gën di bëgg muy bañ di di di di tàllalu maanaam di ubbeeku ak yu mel noonu dégg mm-hmm. mu ne wa qaala wax na ki nga xam mooy abu xumayd maanaam mooy as-saaidi radiyallahu taala anhu fi ashaabihi ci ay àndandoom maanaam muy leeral ay àndandoom comme ni nga xamante ne noonu la ñu ko waxee léegi maanaam mooy xadis la boo xamante ne incha allah dina ñëw ci baabu sunnatil juluusi fi tashahhud inchaa allahu taala maanaam mu daal di wax ne rakaa rukoona annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam summa topp hasara mu daal di jëngal li nga xam ne maanaam euh, mooy zahrahu euh, digg ginnaawam maanaam mu jengal ko maanaam ba mu tàllalu loolu moom mooy li nga xamante ne euh, comme li nga xam ne noonu la ko indee ci baat boobu maanaam dafa ne summa raka fa wadaa yadayhi ala rukbatayhi summa hasara zahra maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne loolu mooy li nga xamante ne moom moom la noonu la ko imaam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam noonu la ko soloowe waaye fii daf koo tënk maanaam dafa indi rek partie bi nga xam ne moo ko mais li nga xam ne moom la wax mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rokoo waaye ba muy rokoo dafa teg li nga xamante ne moom mooy loxoom yi ci oom eh, après mu daa maanaam ginnaaw bi suma topp nag mu daal di jëngal tàllal maanaam li nga xamante ne moom mooy digg ginnaaw bi kon ñu gis ne maanaam nit ki su rukooyee jëm ci ruku na allahu akbar nii bu ko tegee ba pare ci lay def nii topp nag mu doog a jéng gis nga maanaam def allahu akbar gis nga maanaam loolu la maanaam day njëkk a teg loxo yi ci óom um yi wàcc wàcce ba tolloo nag maanaam doog a régler ndigg li def réglage ci ndigg li maanaam lool moom mooy ni nga xamante ne noonu la doxale صلى الله عليه وآله وسلم قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا بدل بن المحبر تمام الإمام أبو المنير بدل بن المحبر ابن المنبه البصري رحمه الله تعالى باب استواء الزهر نعم dafa am beneen chapitre boo xamante ne fii nii dafa bind am na beneen chapitre bu mu fi def. ci ci ci beneen yeneen téere yi. voilà naa am dëgg la waaw loolu dama ko fàtte woon ci beneen boobu mu ngi tudd baabu. baabu xaddi itmaamin quway wal i'tidaali loolu. maanaam euh, ci riwaayat al euh, kooku mi ngi amee ci riwaayat al kushmayhani euh, rahimahullahu taala maanaam ci riwaaya boobu la amee ci yeneen riwaaya yëpp dafa dafa dañ amu ci maanaam bu boobaa loolu baabu amul fii man loolu yoruma ko fii nag bu yoruma ko fii voilà ci beneen riwaaya voilà daf ne manam dafa ñëw ginnaw bi mu waxe li dafa ne hadd ginnaw bi mu ñewé li manam ni imam al bukhari def rahimahullah ci reena riwaye manam al Kushmayhani rahimahullah daf ci yok babu manam babu hadd itmam ar rukuuci wal itidal fihi wal itmani nii wal itmani nii wal itmaaniina manam ci riwaayat Kushmayhani tamit amna benen différence moy wa tumaaniina la bind waye al itmanina ak tumanina ño bok mana manam mom moy ak dal itma an naa loolu mooy verbe yatma innu ni itmanina wala itmanina itmaaniinatan wala bok tumanina tan manam yep dañ koy wax manam lol mom motax manam te mom moy bu boba kon bu babu mom mo tepp fi te mom moy lan moy hadd dexlay manam moy limite moy dexlay frontière itmaamu matal ak roko roko wal ictidaal ak yamu yemmoo fii ci moom wal itmaaniina ak li nga xamante ne moom mooy dal maanaam muy ñaari muy muy muy leeral kon ci bunt bi ay mbir maanaam kon fii euh, li mu indi kon euh, riwa kiiwu abu Humayd bi maanaam euh, muy hadis bi mu indi ko radiyallahu taala anhu moom mooy ne daf ci leeral maanaam daf ko indi teg ko ba pare mottali beneen sens xam nga loolu dañ koy faral di gis. maanaam imam al-Bukhari rahmatullahi taala daal di baabu daal di am lu mu wax daal di indi luy tegtale loolu ba pare daal di waxaat yeggale wa daal di nangam ci tarjuma bi fii tamit maanaam bu boobaa loolu rek la ñuy jàpp ne moom la def moom mooy xadd itmaami rukuu wal i'tidaali ah, fiihi wal itmaaniina wala ba wattumaaniina te moom mooy li nga xamante ne moom mooy kon daf ko ci yokk noonu ci bu dee ci waaye kus muy xan yi daf ci am baabul comme ni nga xamante ne yéen ñi noonu ngeen ko amee ci seen euh, nu sax yi mooy euh, lut maanaam mooy euh, dëxaluk xat dëxaluk itmaam yi matal ak roko roko wal i'tidaali ak yemmoo fii ci roko bi maanaam moom mooy bi soo ko defee itam da nga koy def ci anam boo xamante ne doo nekk ku ku ñàkk a yem maanaam da nga koy def ci anam goo xamante ne danga ci da nga yem mais masalan doo roko ba pare roko boo xam ne danga nga naan nii maanaam doo taxaw benn place mm-hmm. loolu mooy mooy daal i'tidaal mooy da nga nga nga yem moom yem benn place mm-hmm. dégg nga mm-hmm. naka noonu war tumaaniina wala wala nii itmaaniina maanaam te moom mooy tamit nga dal te ci anam goo xamante ne da nga ci dal dal goo xamante ne ku la gis dana xam ne yem nga ci te loolu moom mooy li nga xamante ne mënef na ci wax euh, sabar yi maanaam mënef na mooy jamono ji nga xamante ne mënef na ci wax sàbbaar yi kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo am ci buntu ci ci buntu boobu noonu kon lool moom mooy wuute yi ci nusax yi wallahu aalam dégg nga mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al-kitaab ilayhi haddathana Badal ibn al-Muhabbar te moom mooy mooy Abul Munir comme niñ ko waxee Badal ibn al-Muhabbar ibn al-Munabbih al-Basri rahimahullahu ta'ala mu nekk Abul munir alwasiti alyarbuuci rahimahullahu taala tamit di waa basara eh, rahimahullahu taala moom eh, mi ngi génn àdduna deux centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa al Buxaari eh, maanaam deux cent quinzième année plutôt maanaam deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa ci la génn àdduna mi ngi imaam al Buxaari rahimahullahu taala moom solo na ci moom juróomi xadis te fii mooy fi mu ko njëkk a tudde maanaam saxiix al Buxaari ba saxiix al Buxaari yi jeex ju maanaam juróomi xadis la ci am fii nag mooy fi ñu ko njëkk a tudde rahimahullahu taala imaam Abu Daawuda solo na xadisam waaye sëriñu sëriñam la maanaam imaam Abu Daawuda imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja solo nañ ay xadisam waaye seen sëriñu sëriñ la ci. mu imaam Abu Daawuda benn xadis la am ci moom imaam at-Tirmisi ñaari xadis la am ci moom imaam Ibnu Maaja benn xadis la am ci moom maanaam kon moom bëriwul xadis yi ci kutubu sitta te maanaam ngir ne kutubu sitta ba mu jeex juróom-ñeenti xadis rek la ci teg la ci am amma imaam Muslim ak imaam an-Nasaa'i ñoom solowuñ ci moom benn xadis rahimallahu al-jamii a ne qaala haddathana Shu'ba moom gis nañ ko léegi mu ibnu al-Hajjaaj mu a qaala axbarani al-Hakam te mooy alimam abu muhammad dañ koy wax abu abdullah dañ koy wax abu omar alxakam ibnu otaybata alkindi rahimahullahu taala gane àdduna cinquantième année génn àdduna cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an ibnu abi layla te moom mooy al imam abdurrahman abu abu isa dañ ko abu muhammad abdurrahman ibnu abi layla rahimahullahu taala Euh, muy euh, al ansaari al ginnaaw ko mu nekk kuufi rahimahullahu taala muy imam bu màgg nag nekk imam bu màgg a màgg gën euh, ba nga xamante ne saxaaba yi dañ ko daan fekke ay jotaayam maanaam gis nañu tolloog téeméer ak ñaar fukki saxaaba radiyallahu anhum te maanaam bi nga gis ni ci jotaayam moom taabii la waaye ay saxaaba dañ daan fekkee ay jotaayam di jànge ci moom maanaam di déglu ay jotaayam maanaam loolu day wane maanaam ni nga xamante ne noonu la nekkee euh, ku màgg moo tax Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maanaam fonkoon ko lool naan kii day maanaam nañ déglu ci xale bii maanaam dégg nga hmm. euh, euh, maanaam mu daan dem di déglu ci moom mu nekk kon koo xamante ne tamit moo tax saxaaba yi radiyallahu anhu dañ koo màggaloon moom mi ngi génn àdduna 83e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne anil bara te moom mooy sayyiduna abu imaara wala abu amr wala abu tufayl al bara ibnu aazib ibnu al xaaris ibnu adi al ansaari al xaarisi al awsi maanaam mu nekk waa madinatu munawwara ginnaaw bi tam mu nekk waa kuufa radiyallahu taala anhu moom mi ngi génn àdduna 72e ane ginnaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 305 hadith mom moy li nga xamne mom moy mooy musnadam ci ñaar sahih muttafaqun alayhi amna ci 22 hadith mom al bukhari wetu ci 15 hadith imam Muslim wetu ci 6 hadith ci hadith Seydina al Barra bin Aazib radiyallahu taala anhu maamun annahu qaala nee na kaana nekkoon na rukuucu rukuuc annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yi wa ida rafaa sa ak yu yëkkati ko yëkkati rasahu boppam min rukuuc ba mu des alqiyaam taxaw gi maanaam loolu mooy moom mooy yenente bi sallallahu alayhi moom seet na bu daan julleeg moom maam dafa seetlu ne yeneen bi day nu mu daan jullee sallallahu alayhi wa sallam mooy rokoo am ak sujoodam ak bu yëkkatikoo ci maanaam bu yëkkatikoo ci rokoo bi ak li muy toog diggante ñaari sujood yi maanaam loolu jegewantoo la maanaam mooy lan mooy daanaka dañuy yem wala boog maanaam ah, maanaam ak à ah, une erreur de d'appréciation près maanaam lu ndaw ndaw moo leen di wuutale waaye daanaka danañ yem te loolu moom mooy ngir ne maanaam bu bu bu rokooyee Euh, ni mu fay taxawe euh, maanaam mooy ne dana fa taxaw ba dal dal bu baax a baax waaye bu fa noppee moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala jëfandikoo xadis bi ngir laye ko maanaam mooy ne non seulement daf fay day day day day dootul day day yemmoo waaye tamit daf fay dal te it maanaam dëxal bi mooy limite bi nga xamante ne moom la ñuy def ci rokoo bi maanaam xat xat itmaami rokoo lan mooy yamele rokoo loolu moo tax boroom xam-xam rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam li ëpp ci ñoom dañoo maanaam mooy ne mooy place bi ñu mën a def euh, sàbbaal yi moo tax sàbbaal nekk loo xamante ne ci ci euh, jumhur mooy xanafi ak maliki ak shafii rahmatullah alayhim sàbbaal yi ñuy sàbbaal subhaana rabbiyal azim maanaam bu dee maliki yi dañ ci yokk wa bihamdihi maanaam am maa ñeneen ñi subhaana rabbiyal azim loolu dana maanaam day daal di doy subhaana rabbi al azim comme ni mu nekk xadis sidna xudayfa bu nekk ci saxeexu imaamu muslim naka noonu loolu la nekk ci sunan yi maanaam moo leeral ne subhaana rabbi al azim yonent bi sallallahu alayhi wa am na ci riwaaya bu mu nekk ci sunan imam abu daawud rahimahullah fu mu waxee ne da doon wax maanaam subhaana rabbi al subhaana rabbi al maanaam amma yeneen riwaaya yi nga xam ne daf doon wax ne ñetti yoon la koy wax loolu xadis yooyu wéruñu amma xadis bi nga xam ne moom mooy xadis sayyidina abdullah ibn mas'ud bi radiyallahu taala bu nekk ci sunan moom at-tirmidhi ak sunan moom maaja naka noonu noonu nekk sunan moom abu dawud rahmatullah alayhim xadis boobu tamit wérul amma imam at-tirmidhi rahimahullahu daf ci ne xadis bi wérul waaye mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci jëfe ko maanaam moom mooy ban xadis mooy bi mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax subhaana yoon ne ne ku ko wax ñetti yoon ci sa julli ba pare loolu mu ne wa zalika adna loolu mooy li gën a néew maanaam mooy li gën a niiw li nga xamante ne moom nga mën a teg taxaw ci biir julli maanaam mooy boo rokkooyee waxoo lu ëpp loolu maanaam subhaana rabbiyal azim waxoo ko lu ëpp ñetti yoon maanaam mooy def nga li def li nga def gënt néew imam at-Tirmidhi maanaam dëpp indi na ijmaa borom xam-xam bi rahmatullah ci limite boobu moo tax mu ne loolu mooy li nga xamante ne xadis la boo xam ne mun a waa ala hada ala hada al amalu inda ahlil ilmi min al sahabati wa taabiina wa man ba'dahum maanaam te li te lii moom mooy li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi di jëfe ci ñi nga xam li ko dalee ci sahaaba yi radiyallahu anhum ak taabiina yi ak ñu ñëw seen ginnaaw voilà maanaam te loolu day wane li nga xamante ne ne ne kon loolu maanaam mooy ijma loolu mooy waxinu ijma rek ne am ci manam moy ne da nga xamantene dañ ci dal ñetti yoon subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim manam muy ñaata a peu près ñaata seconde a peu près cinq secondes voilà manam lolu kon moy li nga xamantene mom moy li nga wara a dal moy li gëna niw waye hadith euh, bobu haqiqatan xaqiqatan moy hadith ibn abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu amma hadith ibn uqbata ibn amir al juhani radhiyallahu taala mom tamit di wax ne manam subhan rabbil azim la ci doon wax moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye waaye dinañu gis insha allah taala babu du'a fi ruku' dinañ ko gis ci kanam manam buntu bi nga xamantene mom moy wax ci walu ñaan ci bir ruku' insha allah taala dinañ ci gis ne amna yeneen formule yo xamantene ne nako wax waye dal yi mom moy li nga xamne moy li gën niw moy subhan rabbil azim bu dee maaliki ñoom dañ ci yok wa bi hamdih donte xadis bi nga xamante ne moo koy tegtale dese naa wér amma nag li nga xamante ne moom mooy beneen bi nga xamante ne moom mooy kon moo loolu moom mooy limite bi am waaye sàbbaal ga ñuy sàbbaal ci biir ci fuqahaa u xanaa bi lay daañ ko gis insha allah ñoom war dafa war ci ñoom lool daañ ko gis insha allahu taala waaye kon bu boobaa borom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhi maanaam wuute nañ ci ñaata yoon moo gën maanaam ndax fii mooy limite bi mais ñaata yoon moo gën li nga xamante ne moom mooy lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne maanaam nga weesu ñett yi nag moo gën lu tax maanaam nga def masalan bu dee imaam bi mu def ñeent lu mu bon bon ñeent lu tax ngir la mu rawee woon euh, kii bi allahu akbar ba mu rawee woon kële di bi mu mën koo am maanaam muy ñeenteel maanaam loolu kon moo gën beneen bi ci des moom mooy ne bu yeneen borom xam ne na juróom baax na juróom moom yéem na te baax na am na nag ñoo xam ne yegg nañ ci ba fukk te loolu ngir ne yeneen bi salaa salaam wasallam nañ ci moom ne daf doon julli mais dafay dafay def fukk moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julli naa ci ginnaaw fukki sabbal la daan sabbal ci jul ci ginnaaw maanaam da daan subhaana rabbil azim subhaana rabbil azim mu ngi fukki yoon maanaam ba pare bu yëkkati ko ci rukoo bi maanaam ak bu ak maanaam ak rukoo bi temps mu ciy def ñooy tolloo naka noonu su sujjóot yi temps ba mu fay def ñooy tolloo maanaam kon ci la ñuy xamee ne ñaan gi ñuy ñaan ci sujjóot maanaam warta gudd su fekkente ne dañoo jiite ay nit amma su fekkente ne nag yow rek koy julli moom mën ngaa toog ñaan ba heure bu la neex comme ni nga xam ne noonu lañ toxalee ci saxaaba yi radiyallahu anhum ne ñoom daan nañu ñaan ba mën a tudd soixante-dix personnes soixante-dix nit juróom-ñaar fukki nit tudd seen tur tudd seen turu bàyyi maanaam di leen ñaanal ci ci benn sujjóot maanaam te loolu moom mooy mooy bu jullee ñëw kese am maa yanuut maanaam ñuy julli di jiite nit ñi ba rek di def noonu dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, mooy masala bi aju ci wàllu sujjóot maanaam ci wàllu rokoo bi maanaam temps bi nga xamante ne moom lañ fay def muy limite bi te loolu euh, képp koo xamante ne da ngay euh, julli loo war nga sàmmonte ak maanaam ak limite bu ndaw bi maanaam le minimum naka noonu tamit mu yàgg bu tuuti ba nga xamante ne Euh, di nga ko wax maanaam ay euh, juróomi yoon wala juróom benn yoon su dee rawatina su dee sa làmmiñ dafa gaaw nga wax ko juróom benn yoon loolu bu boobaa nga bañ a nekk koo xamante ne da ngay parax paraxee sa julli te loolu ngir mën ci ki nga xamante ne moom la Seydina Xudayfa ibn Yamaan wax léegi radiyallahu taala anhu ne kooku boo deewee ci nii da dee ci beneen yoon bu bokkut ak yoonu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa beneen mbir bi nga xamante ne Ah, moom la ñuy jàngee tamit ci suñu xadis bi bi nga xam ne daf ne maa xalal qiyaam wal qu'uud maam maa xalal qiyaam wal qu'uud ba mu des li nga xamante ne moom mooy taxaw gi ak toog gi taxaw gi mu moom mooy taxaw pour tari maanaam taxawu tari gi mooy gën a yàgg rukoo bi moo tax mu ne yeneen yépp nag ñoo xaw a tolloo waaye taxaw tari gi ah, ak li nga xamante ne moom mooy toog taaya gi moom mooy gën a gudd rukoo bi ak sujjóot bi ak toog diggante ñaari sujjóot yi ak yëkkatiku bi loolu tamit dañ ci xamee ne bu ñu yëkkatikoo ci rokoo maanaam duñ ne rek sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu allahu akbar loolu tamit dañuy xam ne du demee noonu maanaam euh, ngir ne taxawaay gi ak loolu ñoo tolloo maanaam maanaam taxawaay googa ak rokoo bi ñoo tolloo temps bi nga fay def maanaam kon bu boobaa loolu tamit day dëgër te loolu day wane ne euh, maanaam moo tax borom xam-xam yi rahmatullah bari na ci ñoo xamante ne ci fuqaha yi ñoom ak al i'tidal li ñu koy tuddee boo ko xoolee seen téere yi da seetlu ne léeg-léeg ñoom dañuy wax al-i'tidaal fekk lañ ca namm moom mooy yëkkatiku ci rokoo bi maanaam bu ñu yëkkatikoo ci rokoo bi loolu la ñuy tuddee al-i'tidaal maanaam te bu boobaa da ngay gis ne kon taxaw googu ñuy taxaw euh, euh, dañ cee war a yàgg tamit yàgg gi nga xam ne mooy tolloog li ñuy yàgg ci rokoo ak sujjóot ak bu ñu toogee diggante rokoo bi ak sujjóot bi te bu boobaa dañuy daal di xam ne warta nekk lu ñuy parax paraxee. am maa nag li nga xamante ne moom la ñuy gis léeg-léeg ci ñenn ñi nga xamante ne bu ñu rokooyee maanaam bu ñu yëkkati ci rokoo bi daanaka du ñu jot a taxaw sax maanaam wala sax du ñu jot a yëkkati ko dañuy def nii ne ah, sami allah allahu akbar maanaam est ce que sax sami allah liman hamida bi danañ ko wax loolu rek xatta samia bi rek yaakaar naa ne eh, maanaam ni muy doxale daal ala kulli xaalam duñ taxaw taxawaat moom duñ ko def te lool moom sikk nekkul ci ne julli googu baaxut yàlla nañu yàlla boole sàmm ah, mu ne ah, ah, kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullah taala dina ko indiwaat xadis numéro 801 ak 820 imam Muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro 471 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 852 854 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 279 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1065 1148 ak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 Non mais il faut que je me relis la première, c'est, euh, on a dit quand euh, on dit Rabbana la mhm. euh, il faut être debout. Mhm. Euh, on le dit quand on est debout, donc quand on est tout seul, c'est bon. Mhm. Mais quand on est derrière l'imam, on avait dit précédemment, dans le chapitre précédemment, que pour se relever, on attend que l'imam s'est déjà relevé. Du coup, la question c'est euh, euh, combien on se relève, du coup on dit rien. Ok. soo yëkkati ko da ngay wax rabbana wa lakal comme soo doon kàbba soo doon dem di wax allahu akbar manam ni ngay waxee allahu akbar ci mouvement bu nek muy mat nonu tamit ngay waxee rabbana wa lakal hamdu soo yëkkati ko manam ci jamono ji ngay yekiti ko ci ngay waxee rabbana wa lakal hamdu imam bi la concerne manam imam bi mënta waxaloo sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ci mouvement bi mënu ko waxalo ak ki nga xamantene day julli moom kesse wallahu taala alam ensuite quand on dit amin on a dit que c'était la vie le plus recevable de dire à voix haute pour les chafites et les euh, mais du coup pour les femmes, c'est toujours en bas ou c'est en haut waaw jigéen kay faw ci suuf rek la koy wax du ko wax mukk ci kaw non bu ñuy wax naan amin ah, dañ koy wax ci kaw dañ ko suuf yaakaar naa loolu waxoon nañ ko ci biir wax ci xëy na danga ko jàpput wala bok man mo waxe ko xel moy dañ ne woon euh, yii ñuy wax yépp nak jigen manam euh mom buy wax amin ci suuf rek la koy wax comme buy tari ci suuf lay tari ça, ça c'est dans tous les parce que souvent dans les mosquées, on voit les filles, disent Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, le fait que non, non, non, non, non c'est parce que non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, d'ailleurs non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Donnez votre angle. Euh, bon, souvent pendant le ramadan, quoi, quand il y a du monde, tu, tu l'entends bien. Quoi. Voilà, donc ce qui veut dire que moi, ni nous, t'es à Gounou, nous. Moi, ni nga xam ne dañoo ñëw c'est comme ramadan rek nga koy dégg mooy kon ñii ñëw te yàggu ñoo ñëw la dégg moy ñi nga xam kon dese na xam mbirum wallahu waaw amal na day daal day jar daal leen dal bañ leena bayyi ci ci lëndëm Après, c'est est-ce que quand tu rejoins une prière déjà commencée, hmm. on a dit que le tadbir qu'on fait pour rentrer dans cette prière hmm. est équivalent au tadbir de d'entrée de, et en même temps le hmm. euh, de la position où on va. Voilà, bah, c'était ça la question, c'est est-ce qu'il faut que les y il faut que intention on dugg parce que wa à

dans la, la définition des farata et des interdictions, euh, j'ai pas compris c'était quoi les. On a défini les farata, on a dit à Wadib et farata, et après on a défini les différentes euh, Et dans les interdictions, on a dit il y a deux types d'interdictions. Tere. Oui. Tu moi, moi, moi, haram et Ouais, c'est... Globalement, hein, bien sûr. Parce que Amna Wood C'est le deuxième là, euh, que j'ai pas compris, c'était chez. Chez tout le monde, c'est chez tous les mazas. Non, c'est Macro. Ouais. Ouais, en fait, Macro, ñom ñep am nañ ko. Euh, haram tam ñom ñep am nañ ko. Sauf que ci Hanafiya yi rahmatullahi alayhim ñom dañu japp ne haram euh dafa am karahiyatu tahrim am. xaraam mooy li nga xamante ne euh, maanaam ñoom ñaar nag ñoo bokk àtt maanaam xaraam ñoo bokk àtt ci ni ñu leen di jëfe c'est-à-dire que li nga xam ne dafa xaraam moo li nga xam ne ñoom dañ naan lii karaahiyatu tahrim la am maanaam dañ koo sib ah euh, sibuk euh, li leen la ñoo bokk lépp maanaam bàkkaar bi kii di am mooy bàkkaar bi sauf que li leen wutale lenn kese la mooy ne euh, wouté day am léeg-léeg ci borom xom xom yi rahmatullah ci liñu tuddé tuddee karaahiyatu tahriim maanaam mooy mbir la mo xamante ne ñëpp mën nañ ci baña d'accord muy ben ñaaral bi ci dess mom moy ne ku weddi ne lolu dafa haram du nek yifir lolu mom moy différence entre lu haram alors que lu haram comme ñom par exemple motax ñom ñoom lu ñuy wax haram leneen li ci des dañ naan makruhun man maam dañ ko sipp ci biiru xaram amma li nga xamante ne euh, mooy yi nga xam ne moom la ñu wax xaram mooy yi nga xam ne daal leer nañ comme masalan euh, dañ naan masalan euh, al kii al qatlu bi xeyri bi xeyri xaqin al qatlu bi xeyri xaqin donc xaraam lañu wax rey rey nit ci lu amul benn àq bu tukkee ci sharia bu ko mën a nangu loolu xaram la ñu tuddee mbirum masalan euh, dañ naan aklu riba xaram lekk riba daa xaram lu tax wala boog naan sàngara surbul xamri xaram la ñuy wax mais tey ñoom bu ñu doon wax surbul duxaan maanaam tux ñoom bu boobaa makruhun tahriman la ñuy wax dañ koo sit ci biiru xaram la ñuy wax euh, yére yi nga xamne dañu wone dafa haram comme par exemple zina ndialo haram la ñuy wax manam yoy yep dañ naan haram euh lutax parce que dañ parce que yooyu kenn wuti wuti ci borom ko ngi na dafa haram xaram la te képp koo xamante ne ku nan riba graw lu lekk leen nangam et près lu ep solo moy fi ngeen koy def yooyu koku manam ku wax lolu bu xamé lu wax yéfer parce que dafa génn ci l'islam mais carrément lu te loolu borom ko yëpp dañ ci d'accord lu tax parce que riba xaraam bi mu xaraam alquran wàcc ko ci anam gu leer yeneen bi sallallahu alayhi ko wax ko ci anam gu leer alquran ne yàlla rëbb na ki nga xam ne moo koy lekk yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na ki koy eh, lekk ki ko joxe ki ko xattaa ko seede maanaam na yàlla rëbb na ko loolu nga yow nga wëlbatiku eh, Euh, ba yeneen alquran ne ñi koy lekk dañuy dem safara mu nekk alquran lu leer naññ yoo xamante ne euh, maanaam amul sax équivoque ci wax yi yow yow nga ne noo garaawul jamono mu demee la lekk leen wala jël leen fu leen après fi ngeen koy dugal rek moom ngeen di xool yooyu loolu ku ko wax yéeféer képp ku ko wax ak ku mu mën a doon kooku yéeféer su dee xam na li mu wax lan la euh, te loolu lii mu wax ni boolem borom xam-xam yi ci dëppoo ah maanaam du loo xamante ne dañ naan est-ce que amul di wuutee ak yooyu déedéet dégg naa Samba di ko wax loolu moom moom c'est bon nga xam ne Samba moomu jarut a déglu voilà euh, dégg nga loolu kon euh, euh, yu mel noonu lu ne léegi nag mu des ñoom lu ñuy tuddee lu ñuy tuddee mag kii karaxatu tanzih ñoom am nañ lu ñuy tuddee karaxatu tanzih maanaam bañ amee. ka bi nga xamné li li xaraam léeg-léeg dañ koy wax makro muy karahatu tahrim moo tax ñoom ñu wut benen notion bo xamné ne ñoom it ñoo am muy karahatu tanzih moy ni ñene ñi day wax naan manam moy cibeelu lo xamné dañ la ko sori lo rek moy makro ci comme yenen kii moy différence bobu non moy li nga xamné prohibé yoy lañ koy tuddé ñoom. hanafi yi ñi ci dess ñep ñoom buñ ñu nee ak karaahatu tahrim benn la moo tax ñoom xaraam la ñuy wax wala boo euh, makruh maanaam du duñu du ñuy def précision parce que mooy karaahatu tanzih voilà maanaam si loo xamante ne yàlla dala koo tere wala yenent bi sallallahu alayhi tere ko mais tere gañ ko tere dañ koo tere tere koo xamante ne insisté wuñ ci maanaam ci anam goo xamante ne ki ko bàyyi te yàlla tax dala ci am tiyaaba waaye ki ko def dara bu ko ci fekk loolu mooy karaahatu tanzih waaw mooy makruh lu ñu naan di dañ ko sib waaw lu ñu sib mooy loolu mooy loo xam ne charia na ko tere mais tere ñu ko tere insisté wu ci loolu moom tax bu dee nag comme na ko yow soo ko bàyyee te yàlla tax eh, da nga ci am eh, da nga ci am ci yàlla sauf que soo ko defee dara du la ci fekk contrairement ak lu xaram lu xaram moom ak lu ñuy tuddee karaatu taxrim ci xanafi rahmatullah ñoom soo ko defee soo ko bàyyee te yàlla tax di nga ci am tiyaaba mais soo ko bàyyi soo ko defee soo ko bàyyee te yàlla tax da nga am tiyaaba mais soo ko defee danga ci am bàkkaar danga ci yelloo mbugal amaa li nga xamante ne moom mooy lu tax ñuy préciser bàyyi ko te yàlla tax mooy bàyyi gi warul nekk ittifaaqan maanaam mooy la Euh, mooy ne dama ko bàyyi ngir ne occasion bi présenté wul comme tey par exemple nit ki naanul sàngara le seul fait que ma toog nii instant bi jamono ji ñu nekk nii naanuma sàngara loolu du ma ci am dara mais kañ laa ci am dara mooy su tentation bi ñëwee présent occasion bi présenté wu sàngara ne fi bu boobaa wala sama xel dem ci ma bëgg ko mu am mu tànte ma ma ne non non dafa xaram yàlla bukk ko bàyyi naa ko. maanaam loolu moom mooy mooy tax ma ma kii ko mais mais loo xamante ne par exemple parce que caméra yaa ngi fii nit ñi dañ may gis wala ñeneen ñaa ngi fii nangam loolu bu ma ko fi defee après nit ñi bu lii ñuy wax ak loolu loolu moom mooy bàyyi googu nga ko bàyyi day lenn rek la lay yëkkatil mooy bàkkaar bi nga na bi bi nga bàkkaar la lay yëkkatil mais du la wa du la jural tiyaaba euh, mu amit beneen mbir moo xamante ne euh, lu jege loolu la mooy nit ki Euh, bu bëggee benn def benn bàkkaar xalaat ko mais defu ko euh, ngir ne dafa jekki-jekki xelam da ci génn kooku du am dara maanaam mooy da koo defut ngir xelama ci génn wala da koo defut ngir ne nit ñee fi ne wala caméra de surveillance dañ fay am wala yu mel noonu kooku du ci am gana mais ki nga xamante ne dafa dem ba di ko def jug na xelam nekk ci il faut ma def ko am lu ko gàllankoor ba tax defu ko kooku day am bàkkaar parce que dogu na ci ne da koy def dégg nga feeg mi ngi yemoon ci xam mooy mébét doo am bàkkaar mais soo yeggee ci asima wala al azm mooy dogu ne non lii il faut mu jóg def ko rek faf circonstance yi rek yàq lépp loolu da nga am bàkkaar da am bàkkaaru ki ko def sauf que ci charia lan lañ lay lan lañ la dul teg. mooy duma yi nga xamante ne moom moo la ci naroon a fekk ci àdduna soo ko defoon maanaam ki nga xamante ne tey daf ni day sàcc jóg dóor ay plan am yëpp ne foog mu def ko dem faf nag euh, ñëw fekk policiers yi taxaw ci kanamu fi ñuy sàcc fi euh, matériel bi mu bëggoon a sàcc kooku day am bàkkaaru sàcc sauf que li ko li mu dul li ko ci dul fekk mooy kenn du dagg loxo parce kenn mënu koo àttee rek ci ne dangaa bëggoon a sàcc kon nañ dagg sa loxo voilà loolu mooy différence entre ñooñu kii jugoon ne day njaaloo masala ba dóor plan bi ba kii yépp dem fekk ndaw sa néewu fa wala boog euh, <laughs> am circonstance yoo xamante ne am nañu ba tax en daal li tax voilà mooy dafa ñëw fekk kër gi fees dell ak ay nit ak yu mel noonu euh, <laughs> wala yu mel noonu kooku day am bàkkaaru njaaloo mais kenn du ko dóor ay yar wala du du caa kenn mu dee. maanaam ki loolu yëpp du ko ci fekk. kon ku yëg ku yëg ci asma. waaw ba ci am yiw. voilà ku yegg ba noppi tuubaat dellu ginnaaw laataa mu koy def bu kooku da ci am tuyaaba kooku ci am tuyaaba voilà. am naa ki nga xamante ne dafa mébétoon rek après mu bàyyi. kooku dañuy effacer manam du am bakkar du am bakkar du am tiyaaba ndax jotagul woon yegg ci dogu voilà mooy loolu moom voilà moom mooy voilà lo xam nit ki dako ko prémédité moy moy mooy azm dégg nga taala après c'était euh, je sais plus ce qu'on avait dit sur euh, euh, le fait de lever les mains pendant le takbir mm-hmm parce qu'en fait, on a dit que le mazhab de Imam Abu c'était le mazhab de Shafi de Ambali, c'était le plus recevable. Mhm. Et que les. de quoi Par rapport à euh, Non, que c'était moins recevable et que le mazhab de Malik était... Non, Hanafi et Maliki, nous sommes beaucoup Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu que le mazhab des Shafi de des voilà. ça c'était le plus recevable. C'était aussi le mazhab de Imam al C'est par rapport à quelle bonne question Le fait de lever les mains pendant le tas Non, ne Non, pas de. de lever les mains pendant le takbir, on a dit qu'on levait trois fois à trois moments. non voilà l'olo, l'olo, l'année non non non ne euh, ñaar ñaari possibilité moo am mais li gën a bëri li nga xamante ne amaan na loolu ci lañ doon wax ne amaan na ne li gën a bari li am moo ne le fait que comme li kii rek Seydina am na naxai wax rek rahimahullah voilà bi mu naan Seydina Waa'il ibn Hujr radiyallahu anhu bu gisee yenn bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati loxoom benn yoon Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu gis na ko juróom fukki yoon yëkkatiwul loxoom voilà loolu lañu waxoon et que xadis euh, yi ñuy wax na dañuy yëkkati loxoom amaan na ne ci ki la julli euh, naafila la parce que euh, Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom xale la won jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ca gannaaw la daan taxaw. mais du coup oui je me suis trompé en fait c'est le mazhab des Malikites et des. Hanafites et des Hanafites. Hmm. On a dit qu'il était le plus recevable. et que et que et que il faut ñu préciser ben mbir moy ne ñom yëpp yëpp baax nañ dañuy xor rek ban mo xëy na ban la yent bi saa sam gënoon a bëri lu muy def mais sikk nekkul ci ne yent bi def na ñaar yëpp sallallahu alayhi wa sallam mhm. comme mooy mooy exactement même li ñu conclure ci diggante xabdu bi ak sadlu bi mhm. sikk nekkul ci ne yent bi sallallahu alayhi def na ñaar yëpp lan moo nekk wuute bi mooy ban la ci gënoon a saxoo ak ban moo ci gën a dëgër maanaam ban la mu gën maanaam loolu la rek mooy comme kàbbar bi tamit yëkkati bi ak wàcc bi bu ci nit def bu ci nit dulli mi ngi julli ci sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà legui et du coup la question c'est pour la prière de l'Aïd et la pour la salat euh, la salat des des défunts. Mhm. Euh, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait le plus souvent. mooy bu ne allahu akbar loolu tamit day delou wat ci ki bi yaakaar naa waxoon nañu. Mhm. ne bu dee eh, la do yëkkati wax sa loxoy donc euh, Maliki te. voilà non la allahu akbar dernier yoon après mu jeex doo ko yëkkatiwaat mais bu boobaa Shaafi'i yi ak Hanbal yi ñoom dañ koy yëkkatiwaat Et après la question c'était dans le hadith euh, dans le hadith 791 euh, là. Comment c'est que Souleymane c'est Al-Amash

سليمان المغيرة كم سر؟ سليمان ابن المغيرة أكرر هو وبصرة هو مي هو تعلم هو كيلو هو نيفو هو بان بان بان بان بان ديسيدي ان 165 هو ا مارش كان لي هو 100 140 فوالا باسكو Euh, sooba moo ko mag Shu'ba 165 la génn 160 la génn àdduna mm. Shu'ba ibn a hajjaj mi ngi génn àdduna 160 donc kële moom ñoom ñaar Shu'ba ak Souleymane bi ngay wax mm. ñoom ñaar ñooy ay moroom mais Shu'ba jëlewul ci moroomam moom taalibe sëriñum la muy muy muy muy ñu euh, euh, Amash. c'est comme ça qu'on trouve que c'est un enfant. Oui, ak tamit quand nañ ni càllali que c'est un bu am la voilà la taala euh, so xam nga ay manam motax tax ba su nee Souleymane ci laa jëlee parce que keneen ku dul kooku loolu faut ñu préciser ko dafa am taalibe yo xamne suñu jele ci ñu bari ñu bokk tur fu fepp fo xamantene waxul kan la réellement maanaam waxul euh, su waxul su préciser wu rek dañuy xamne di diwul maanaam su préciser wu rek dañuy xam ne diwul voilà. comme comme comme musaddad bu ne xaddasanaa Hammad rek dañu xam ne. ibnu Zayd. ah. ibnu Zayd ibnu Zayd la. comme Abdal bu ne xaddasanaa Abdullah rek. ibnu Mubaarak la maanaam parce que c'est que dafa am taalibe yu mel noonu comme Muhammad ibnu Yusuf al-Firya bi su ne xaddasanaa Sufyaan rek as-Sawri comme az-Zuhri. Azuri su ne xaddasanaa Sufyaan te précisé wul Ibnu Uyayna la bu dee Ibnu Sufyaan as-Sawri da koy précisé voilà nañ wala bu contraire bi ah, bu ne bu ne xaddasanaa Zuhri maanaam bu ne Sufyaan ñu ne xaddasanaa Zuhri dañuy xam ne Ibnu Uyayna la ndax bu dee bu ndax sëriñu kooku taalibeem su fekkente ne Zuhri la su dee su fekkente ne Sufyaan as-Sawri la doon na ko préciser voilà maanaam beneen voilà moo loolu mooy exemple beneen contraire voilà. mais as-Sawri jëlee na ci imaam Zuhri waaw jëlee na ci moom jëlee na ci moom dégg nga ndax imaam Zuhri jëlee na ci waa Basara maanaam ak génération gox boobu. moom az-Zuhri moo tax mu jël Seydina Anas radiyallahu anhu ànd ak Seydina Anas moom Basara nekkoon moom az jàng na ci ñoom mhm. waaw dégg nga baax na wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin